موم سيدنا سيد علي من الحمد لله رب العالمين جناو سنتي الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم mu ne mucc ak yërmande yàlla yàlla na nekk ci yonent bi yal na yàlla dolli ngërëmam ci sunu sëriñ Seydi Ahmada Tidiane Chérif mu ne alhamdulilahi rabbil aalamiina ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu dëppale ak yiwam wammat ñu tàggat ñu ci bis bu barkeel bii di ziyaara bi ci mbooloo mi nga xam ne daje bu barkeel la mu ne mbooloo mi nga xam ne ay mbokk jullit ñoo fi daje ak ziyaara bi nga xam ne ay taalibe Seydi Ahmada Tijaani Chérif ñoo fi daje te ñi fi ñëw ñépp kenn ñëw fi lu dul namm li nga xam ne lool la sunu borom subhaanahu wa taala namm su jullit mu ne yàlla sopp na ci ñun daa iman yeesal kóllëre ak jokk mbokk ñun jullit moom daal Seydina Sidi Ali moo ngi sant dayok cant mboolem jullit ñi fi teew ci bis bi mu ne ñoo ngi sant yàlla mu ne ba yàlla andee ko ci ay soppee maamam Seydi Ahmad Tidiane Chérif ay soppee ñi nga xam ne yàlla dafa feesal seeni xol cofeel gu dëggu ci Seydi Ahmad Tidiane Chérif ak njabootam ñi nga xam ne yitte woon nañ daa iman di leen jëfal jëf ju rafet Hmm, ñi nga xam ne ñoo ngi leen di seedal dañoo sellal seeni jëf ak seeni kàddu ngir yàlla mu ne cofeel googu nga xam ne dafa dox seen diggante yéen ak ñoom njaboot Seydi Ahmada Tidiane mu ne seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo saxal cofeel googu mooy sabab bi ñu fi taxa daje ñun ñëpp kon tey nañ ñëw na ci bis bi wuutu ci mboolem njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i mbokkam ñëw wuutu waale mboolem njabootu Seydi Ahmed Tidiane Chérif moo ngi jagle ay cant ak nuyoo mboolem soppee maamam Seydi Ahmed Tidiane Chérif ñu fi teew mu ne mboolem kilifa diina yu fi teew bu ci tuddee sëñ Ahmed Babacar rek dafa mel ne tudd nañ ñu fi teewoon démb ba waxtu wi ba ñi fi nar a teewi mu na ci ñi ñu war a jiital mooy ñi yàlla jiital buñ ko waxee mooy ahlu baytu rasul sallallahu alayhi wa sallam di waa kër yonent bi ak ñi nga xam ne la yàlla jiital ci wàllu diine ji di imaam yi ak muqaddam yi ak mboolem xalifa yi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy jàngalekatu daara mu ne alhamdulilahi lii yëpp nag buñ ko waxee danañ jël cant googu ak ngërëm googu ak ñaan googu yëpp delloo ko comme ni ko sunu borom bi subhaanahu wa taala di waxee ku santul sabab santoo ma man yàlla kon sabab bi moy al alxaaji Keneme ak njabotam sayyidina mo ngi leni sante bu baakha baakha baax muné abna al hadr ab naa ak mbollem njabotu Seydil Haaji Malick mu ne na ngeen xamni yéen abna al hadr yéen sayyid ahmed tijani mo len jital ndax ta neena kep ko xamne ne ñun liggéeyal nga ñu rek ñi tag la ca kanam كانش يعرف شكون هو لانه هو نائب على الله عليه وسلم مني سيدي احمد التجان نك جيتال ياو سانتال يالا باسكو احمد التجان نك بو نكوي واخ منو نيو خام تي موم دارا لودور رك خام نان ني موم الحمد لله يالا دفناكو موي خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم moo ngi ñaan yàlla daje bi yàlla ko yàlla def daje bu barkeel mu ne ku ci nekk ku nekk ci ñun moo ngi ñaanal ak yiwu yàlla yàlla nag ci mbaaxam moo xam li baax ci jaamam mu mboolem soppe seen maam Seyd Ahmada Tijaani ak soppam yi nga xam ne ñoo fi teew moo ngi ñaan yàlla mu kawe te sell yal na yàlla guddal seeni fan yal na yàlla kattanal leen dëgëral leen ci liggéeyal tariqa bi ak diine islaam yàlla def sunu njiit yi ci wàllu diine yàlla daf leen di tànneefi tànneef ñu sunu borom subhaanahu wa taala tànn ñu wuutu fi ñu fi baax ñu fi nekkoon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabam ak képp koo xam ne taxaw nga ci mbaax ba ilaa yawmi diin ñun insha allah moo ngi ñaan ci wàllu tëbb ñun ñëpp yàlla nañu yàlla tëbb mooy yàlla nañu yàlla dolli ci géeju Seydi Ahmada Tidiane Chérif tëbb goo xam ne danañu dolli cofeel gu dëggu ci Seydi Ahmada Tidiane yàlla saxal ni ci kóllëri ñu doon ay taalibe Seydi Ahmad Tidiane yu dul dog yu dul dagg ci tariqa ba yowmal qiyaam ci seen barki maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne njabootu Baay Kenema moom alhamdulilahi mënul wax dara lépp loo xam ne mën na ko maanaam lépp loo xam ne yéene na ko war a wax rek làmminam wala xelam dana ko wax xëy na boo ko waxee mu tuute seen àq wante nag alhamdulilahi rabbil alamina li ngeen ko def ak ni ngeen taxawee yàlla moom xam na ko moom tamit yëg na ko yàlla na yàlla fay leen mu ne moo ngi sant bu baax a baax a baax kilifa yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ñoom nga xam ne Seyd Abdul Muttalib moo leen yabal ñi ànd ak moom Seydina Seydi Ali ku mel ni ku magam bu baax di alxaaji bappaleen alhamdulilahi ak Thierno Ibrahima Sall ñooy mag ci ñi nga xam ne fi nekkal am ay kilifa alhamdulilahi ci Abdou Salam Touré alhamdulilahi ak alxaaji Mouhamadul Habib ñoom tamit ay kilifa lañu ànd nag ñun ak ñi nga xam ne ñu bëree bëri bëri maanaam xam ne bu ñu motal wante ñoom ñëpp Seydina Chérif moo ngi leen di bu baax a baax ñu ne alhamdulilahi bis bi daal comme ni ko alhaji kene mi waxee sant na ñëpp gërëm na ñëpp ci wàllu takk der yi ci wàllu sécurité ñuy war wàllu làpp lépp rek lu fi nit def donte sax benn jéego nga fi def yal na la yàlla boole ci liggéeykatu Seydi Ahmada Tidiane Chérif mu ne moo ngi ñaan képp koo xam ne teew nga fi bépp jéego boo def fa nga bàyyeekoo yàlla na ko yàlla def junni junni yiw ak mbaax ak pajum ajo mu ne soxna yu baax yi nga xam ne xëy na mu ne xam nañ ni yéen a féetewoo lépp ci wàllu kër gi yéen a yor njaboot gi yéen a yor togg yéen a yor lépp wante lépp lu ngeen fi def si seen cofeel ci Seyd Ahmada Tidiane Chérif yal na yàlla delloo barke bi seen yee si seen njaboot ak lépp loo xam ne dafa génn ci yéen ba yowmal qiyaama mu ne incha allah comme ni mu ko waxee woon eh, yàll na yàlla fayal ñu njabootu alxaaji Keneme ak teraanga yu ñu ci def ak képp koo xam ne sax mbuusu ndox nga fi indi lépp rek incha allah yàlla na ko yàlla def lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax jël benn tibb dugal ko ci biir jullit bu xiif moo gënal yàlla nga tabax ko junne jàkka mu ne Chérif mu ne maamam yonent bi nee na nga tibb benn dànk jox ko benn jullit bu xiif moo gënal yàlla nga tabax junnee jàkka ak juma kon bokk yàlla na yàlla fay leen yiw ñun tamit nañ leen yéene teraanga jooju ku ci nekk nga taxaw barkeelu wax na ko incha allah loolu yépp ci liggéeyal Seydi Ahmad Tidiane la bokk kon incha allahu taala nu mu ko waxee woon di ñaanal yàlla ñun ñëpp yàlla nañu yàlla may wér ak guddi fan at yu nekk ñi fii daje incha allah yàlla dafa ñu yokkute mu ne Serigne Fata Ahmed Lamine mu ne yow ak ñi nga àndaloon ak ñoom Cheikh Tidiane ah njaboot mu ne lépp loo xam ne digga digga woon na ak yéen joxoon nga seen kàddu motal ngeen ko rafet na yàlla na yàlla rafet seen mbiri àddina ak àllaaxira mu ne incha allahu taala yàlla na yàlla fay kilifa yëpp ñëpp yàlla na yàlla gërëm leen incha allah day eggale ay wirdam incha allahu taala ñun ñëpp ñu yéene ci ku ci nekk rek la nga doon liggéey. ak fa nga doon liggéey nga ñaan yàlla mu defal la ci tawfiq ak gudd fan ak yokkute incha allah si naa ñaanal ñëpp wér ak wërsëg ak jàmm ñun ak lépp lu génn si ñun ñëpp yàlla nañu yàlla def ay taalibe Seyd Ahmad Tijaani wàllu takku der yi yàlla na yàlla yokk seen garaat defal leen xéewul gu bëri ndaxte alhamdulilahi fu ngeen taxaw rek nit ñi yaakaar fa eh, at amahum min juin wante wa amanahum xaw xawfin moo fi topp maanaam sécurité lépp luñuy ragal rek inshallah allah yéen tamit yàlla yàlla sam leen yàlla mo koy wattu yàlla yàlla wattu leen incha allah def ñaan bu boba inshallah taala ñu bàyyil ko ñun ñep ñu tok comme niñ ko waxe ñi xaar reer yi inshallah taala ñi ñu wala tamit inshallah allah kàddu amin amin amin amin amin amin amin ya rabbal alamin